ay liggéeykat yu farlu gàncax gi naat lool légumes yu rafet mucc ayib lañu fekk fii ci Mbousnakh nekk ci commune bu Tassette bokk ci département wu Thiès. jëwrin bi ñu dénk wàllu mbéyu dër mi di docteur Macoumba juuf amaloon ab dox bu nemmeeku ci yile di wax ni dama ñëw fii tey ci tànku nemmiku euh, suñu mbokk euh, kenn ci doomu Sénégal yi nga xam ne neex naa woon yeneen sénégalais yi rawatina ndaw ñi mu tudd Moustapha Fall jiite société bu ñuy wax Falilou ata SA. docteur Macoumba juuf di rafetlu liggéey bi nga xam ne Mouhamadou Moustapha Mbacke Fall di borom tool bi mi ngi koy amal ak i employéem ci siitu Mbousnakh bi. ci xarañ ba ci ci dayo ba ci yaatuwaay ba xool fii ba fu sa bët yem mbéy moomu la am na fi 300 hectares mu ngi bay ci téeméeri hectares yi ak juróom-ñaar fukk di def ci benn hectare suuf soble. juróom benn fukki tonne béykat yu ndaw yi ñu ngi def ñaar fukki tonne waaye du béykat yi war mbus nax de ndax naa ci ñëw léegi du recruter leen rek ni mu leen di liggéeyloo fii ñoom duñ ci jàngale waaw kon ñooñu créer nañu condition intercommunalité sur le plan économique maanaam communalité mooy intercommunalité mooy dugalante ak jàppalante ci biir communes yi seq jàmm ànd liggéey ci lu jëriñ seen askan loolu war nañ ko def ci fànn yu bëri mais léegi ci wàllu koom-koom moom Moustapha defal na leen ko xam naa ne yombal nañ ko ko dal bi waaye war nañ koo gën a sant war nañ koo gën a gërëm ndax gis nga njaboot yi nekk fi yëpp ci commune yooyu lañ jógee. soble ak choupame nekk li ñuy faral di gën di béy Ousmane Ngom ma jiite ñiy liggéey ci bile site di ñu xamal traite yi ñuy béy yi les légumes ngir rek am rendement bi ñu soxla. jamono yi mooy soble lañuy def. su pome gis nga am na pataat ñu def fekk ngeen ko foofu euh, loolu boo xoolee ñaar yooyu la ñuy def parce que dañuy def première campagne dañuy def le tout feesal tool bi ak soble euh, deuxième campagne bi buñ paree soble bi dañuy def supame pour mën a continuer activité bi euh, douze mois sur douze ob soble boo xoolee daa ama moment yoo xamante ne moom nga ko mën a commencer parce que nawet bi da Euh, bu demee ci nawet bi surtout début nawet bi noo koo commencé dangay xaar ba nawet bi jeex à partir de septembre nga commencé di labourer boo labourer ba pare da ngay semer directement dangay def le tout nag pour au moins nga semer le maximum pour mën a teel a dugg ci marché bi parce que Sénégal am na moment yoo xamante ne euh, soble bi moment yooyu dañ koy importer parce que du fi am ñun nag suñu stratégie mooy ñu def le tout pour teel a commencé nga xamante ne dinañ mën a teel a dugg ci marché bi. Gerte la ñuy bay premier. cycle bi c'est-à-dire cycle précoce bi bu ñu demee ba tardif bi aussi kii la ñuy utiliser red king parce que ñaari variété boobu variété bu ne daa période mu adapté wu moo tax variété yooyu la ñuy def xanaa peut-être deuxième cycle bi aussi dinañ utiliser basique mooy bii nii ngeen gis si nii. dencukaay nekk jafe-jafe yi ñuy faral di jànkonteel suñu wittee seeni légumes ba noppi Ousmane Ngom diwoo woo nguur gi ngir mu jàppale leen. côté boobu surtout lañu koy woo pour mu jàppale Euh, baykat yi parce que boo xoolee Sénégal li ñuy produire andoo en même temps surtout période bi ñu nekk nii dañ ñëpp dañuy daje ci marché bi su ko defee prix bi day chuter te normalement ñu amoon ay euh, magasin de stockage nañ def le tout pour stocker foofu ko foofu ba mën a yore Sénégal douze mois sur douze pour importation bi dootul mën a ñëw Sénégal parce que sénégalais am nañ capacité vraiment liggéey lu ñuy euh, bay lu ñuy dunde loolu moom leer parce que exemple soble bi am na li ñu ci woon am nañ ci expérience seulement capacité de stockage mooy problème bi nguur gi nag côté boobu foo mu jàppale euh, baykat yi pour ñu mën a am fi ñu stocké suñ ko defee rek dinañ mën a étaler douze mois sur douze pour mën a produire oignon Sénégal. Macoumba Diouf di indi tontu ci jafe-jafe yi nga xam ne li lee baykat ñu ngi koy jànkonteel muy bërëbu dencukaay yi. loolu nag président la parce que moo indi joxoñ bi moo indi ay moyens yu mel ni ay engrais ay euh, jiw ay matériels ak yu ni mel subventionné ko jàppale leen te ci yokk ko la dëkk yemu ci mu organiser loo ministère du commerce li ñuy wax gel bi mooy bu fi yooyu ñoratee ñu téye importation yi jaay li fi nekk léegi ñaax nañu ci ay affaire chambre fo comme ni mu ko waxee maanaam bërëb yi ñuy denc li fi ñore mais kon kooku Babacar kenn amatul wax dëgg yàlla loo ko wax donc président vraiment lu ci ni mën a wax rek mooy xanaa yéex ci jot rek la ci nit ñi mën a jàmbat en tout cas ci wàllu mbéy mi nga xam ne man foofu laa féete jàpp naa ne kenn la ci njiitu réew Sénégal ku nekk nag ci ñi fi jaar jéem nga waaye moom moom vraiment raw na ñëpp ñu ñaan suñu borom euh, tegtal yi mu joxe ak santaane yi mu joxe ci kuréelu nguur gi war jàppale ndaw ñi nañu ko euh, matale. soxna yii di ci daan seen doole. di sàkku ci ñi nga xam ne ñoo jiite yile tool ngir rek ñu oyofal leen liggéey bi wala sax ñu yokkal leen payoor gi ngir ñu ci gën di mën a gis seen bopp. boo xëyee. waaw ngay dugg ci tool bi. sept heures suba. sept dugg ci tool bi. Mhm. soo duggee ci tool bi sept heures. Ah. yaa ngi sëgg. Mhm. sept heures ba ba onze heures trente. nga soog a toog. onze heures trente nga soog a toog. onze heures trente bi boo ko toogee. Mhm. di nga dina di nga di nga toog di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey. ba une heure trente nga wàcc ñibbi soo wàccee ñibbi nag mhm. yaa ngi nekkaat ci beneen liggéey onze heures bii ñu wax ni dañ si war di toog ñu may ñu ñu di si lig ñu si toog boog ndax ñu jigéen lañu ndax jigéen sëgg dafa metti ci moom metti na ci moom metti boo xam ne bii mhm. doy na waar lool doy na waar lool luñ ñu mën a oyofal si liggéey bi rek mhm. ñu gën a mën a dem ak ñoom ndax jigéen liggéey rek la xam. lu ñu yokkal rek. nawee si 2500. bu ñu amoon 5000 sax ñu jël. Ah. bu ñu amoon 5000 sax ñu jël. man benn doom laa am. bëgg mu am jabar. Mhm. moo tax ma ñëw fii. xam nga ban heure laa jóg. Mhm. une heure du matin ñëw fii toog ci bunt bi jàpp ci yàlla. xam nga jóge Ngunjaan càngaay koo dal ni mu sore xam nga suñu dëkk fu mu fu mu nekk de Ngunjaan càngaay laa dëkk foofu laa joge ñëw fii. 2500 bi peut lool nee nañ dafa tuuti waaw parce que loo gis daa am fu muy démarrer ak fu ñuy jëm daa am fu ñuy jëm peut-être dans le temps loolu mën naa am weddiwu ma ne mën na am te suma ma sañoon it mooy am te je crois que entreprise bi aussi bu sañoon loolu mooy am mais fi ñu toloogul parce que euh, boo xoolee fii nii euh, docteur mos na fee ñëw am na lim fi fekkoon je crois que bi mu ñëwaatee am na fu mu am na am na jéego yu ñu fi am waaw je crois que noonu lay xel di demee ba li ñu soxla ñun ñëpp ñu am ko parce que boo xoolee début bi dañ doon am même fin du mois da doon jot nga am problème mu fay nit yi ndax instant yooyu yaa ngi wër culture yi gën a adapté wu ak li nga def parce que fii nii def nañ fi variété bu ne ah lépp lu ñuy bay Sénégal def nañ ko fi mais doxul woon soble bi lañ commencé di retrouver wu. ginnaaw ba mu jàngee mbayum dër ca bitim réew dellu si Sénégal daal di initier société bi di Falilou Atta moom Mouhamadou Moustapha Mbacke fal di rafetlu taxawaayu docteur Macoumba Diouf mi ñu dénk wàllum horticulture. boo ma def. agriculture dama dem Almeria def formation bi def li mu laaj yëpp doog a ñibbisi bi mu na yàlla dalal ma ci moom ma dal ci loxoom tout le temps ñuy wax parce que euh, sunu baay sëñ Abdou Aziz Al Amin moo ma boole woon ak moom. bi ma jëlee suuf si moom mi c'est pas la première fois mu ñëw fi fu ma toll ci mbay damay communiquer ak moom mu may encouragé di ma teg ci yoon bi ma jëlee suuf si rek wax naa ko ñëw na fi visiter ñu fekk ñuy essayer comme ni ko Ousmane waxee. façon culture yi nekk essayé nañ ko fi ba yàlla dogal ñu jël ñi nga xam ni jël dina parce que ñu bari dañ ko ci tëb parce que difficulté yi ñu jàll ak yëpp dafay paas ci ginnaaw kon defe naa nekkul ñu koy mais li ci am solo mooy xam naa ma ku ma didi ñoom mooy liñ fiy def xam ni pratiquement ñu ngi fiy duwal presque deux mille personnes entre Tassette Ngoundiane ak yeneen dëkk yi nga xam ni ñoo fiy ñëw di liggéey mu nekk mbay mu yaatu moo xam ne ñëpp dañ ci war a gestu tey woon ci ginnaaw li ñuy wax ci problème emploi c'est possible mën na nekk ñëpp jàppee ñu mën a liggéey parce que bii rek du du bi am na feneen fu ñu commencé am na yeneen commencé am na yeneen ñu commencé moom xam na ci dara duñ tey lañ njëkk a commencé mais ma kumba li ci am solo ci moom mooy fu ñu nekk fekk nañu fa fu ñu nekk day ñëw wàcc sur le terrain xam li ñuy def jox ñu xelam parce que li ñuy wax ci mbay moom xam na ko parce que yàlla dogal na ci loolu la nekk ñu ñëwee nañ fii boobu lépp kon tamit jàpp naa ni war na comme ni ko waxee sànq kilifa gi war na ko jàppale. war na ko waaw war na ko jàppale taxawu ko ci ci lépp ci côté boobu parce que vraiment ñun. béykat yi moom mi ngi ñuy taxaw. lu ëpp juróom benn fukki doomi aadama di liggéey ci yile tool docteur Macoumba juuf jàpp ne lii lay mooy li mën a saafara problème mu chômage fii ci Sénégal. mbir mi sorewul kon mbir mi sorewul nañ joxe suuf si ci anam yu mu jëriñe askan wi mais nag ko doomu Sénégal yi investir ci secteur privé Moustapha ngi nii bu ko waa ngu ñaan ne woon du fii kon du jël junni euh, nit ak juróomi téeméer par bés kon du jël ay doomu musnaax yu demoon université jàng ba yeggal wala jàng ba am fu ñu ca toll léegi ñëw nañu mu embauché leen fi ñu am seen métier ñu nga dégg ñu interviewé leen fii yëpp du Moustapha ñooñu fii lañ dëkk ñooñu li ñu la wax lu leer la ñooñu fii lañ jàngee li ñu la wax yemu ci wax naa la kon création d' emploi lim baa ngi noonu masse salariale baa ngi noonu mais yemu ci mooy tàggat bi mais formation pratique la main à la patte maanaam njàngale moo nga xam ne ci jëfe lay jaar fi mu nekk mboolem ku fi tractoriste maanaam dawalkatu tracteur yoo xam ne mën a dawal camion wala oto rek taxatu mën a dawal tracteur maanaam métier la laa bëgg a wax tractoriste irrigateur maanaam pour irriguer ay centaine hectares ay téeméeri téeméeri hectares nga toog benn béréb di ko contrôler muy roose ndox mi di génnee nu maase dara du yàqu loolu métier la Babacar ñu koy wax irrigateur donc nga jël yeneen métier yi nga xam ne yëpp dafa ànd ak exploitation fi mu nekk formé na ci juróom benn fukki nit. ba tey rek ci doxub nemmeeku bi fii ci bët Sénégal ñu fekk fi ab groupement d'intérêt économique bii Mansour Sow jiite ñu ñuy xamal jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy am ci ndox. ak subvention yi nga xam ne dañ koy salfaañee ba du yegg si ci seen loxo. membre yi ngay gis fii kenn ku ci nekk euh, ay jigéen ak ay xale ak ay mag parce boo xoolee membre yi xale yi ñoo si ëpp jigéen ñi mot nañu cent cinquante personnes góor ñi nekk deux cent cinquante personnes kon nag ñun bëgg nañu ku ñu yëg ku ñu jàppale. bu dul woon tey Safina Filifili yàlla xam na ne day fekk tool bi béykat yi ñàkk nañu ko ndax duñu moom moo yor ndoxam. di ñu jàppale nekk suñu partenaire ñu ko jox suuf si muy liggéey hmm. moom tamit mu ñuy jox ndox mais li ñuy jox doyul parce que bu fekkente ne yor nga lu toll nii hmm. hectares yi toll nii amoon lu ñu lay jox lu dul cinq hectares vraiment loolu dafa tuuti waaw bëgg nañu état bi jàppale ñu ba nga xamante ne bu ñu amoon tey ay forage benn forage boo xamante ne dinañu mën a alimenter yaakaar naa fii région dakaar euh, ku fi bëgg liggéey rek di nga am foo liggéey parce suuf saa fii te loolu rek moo ñu teye liggéey membre yi ñu yor yëpp kenn ku ci nekk yaa ngi liggéey gis fi sa bopp loolu nag bu ñu amoon ku ñuy gën a jàppale gën koo yaatal wax dëgg yàlla kon amul kenn kuy some fii bëgg a béy te ama foo gisuñu benn ko xamante ne jóge na si état bi mu ne mu ngi ñuy jàppale te gis nañ état bi génne ay tracteur indi ko fii ñu koy subventionné jokk ay nit ñoo xam ne ñun xam nañu ne ñooñu euh, li ñu mot genn wàll hectare sa yoruñu ko te ñu ngi leen di jàppale di leen jox ay tracteurs ñuy dox am na tracteurs yoo xamante ne dama gis sax ñu soppaliku ñu nekk ay euh, maanaam ñuy ñuy vider ay ay ay douze foo xamante ne mbéy moo ko taxaw na jóg waaye comme ñooñu amuñu lu ñu béy te jox nañ leen machine ñu mujj koo yóbbu ñu koy euh, defaraat muy muy dekk ay kii vider ay mbalit kon nag ñun ñu ngi fii di béy bëgg nañ état bi jàppale ñu bu tracteur génnee ñuy subventionné ko ñu am si bu engrais génnee ñu ñàkk béykat yi toll nii léeg-léeg gis borom tool yoo xamante ne benn borom tool boo xamee li mu yor motul sax genn waa hectare mais day koy day am si engrais bi ñu si subventionné mais ñun ñu toll nii nekk tool bu toll nii yor ñetti commune ñoo ko bokk lu mot vingt villages bokk ko te mënuñ sax engrais bi ñu si subventionné sax mënuñu ko am bu ñuy tey dañ si ay magasin la ñuy dem waaw vraiment métti na. docteur Macoumba Diouf fas yéene see indi saafara. ngir rek béykat yi mën na amal seeni activité ni ñu ko bëggee. lii suñu bos bu doon feebar it parce que xamante ne mais saafaroogul ci ñeneen ñi affaire ndox par exemple foofu lañ njëkkee xam ngeen ne man yoruma affaire ndox mais nag ci nguur laa bokk kon dinaa leen solal robbu avocat amul problème mais mais bu mu bu mu doy Ñoxor euh, Ndour mooy directeur bu gestion euh, des ressources en direction général de la prévision des ressources anno eau ñu wax DGPRE maanaam ni ñuy saytoo affaire ndox ci réew mi ba mu doy pour mbéy ak naan ki yore loolu ngeen xamu leen ko mais man naa lii dina doon yóbbante ci moom. yàlla mayee fan. ba kon saison bi di ñëw parce que bu moom pare mais nag am na waa bi ñu jot ren. wala tin am na ñu jot ren parce que ñoom it nii lañ def dañoo ñëw ne ma ñun kat fraise la ñuy def ak yeneen i mbéy ñu ngi fii ci wet gi mais amuñu may ha ah, ñu ne wax fekk na sax mu tardé gaa mm-hmm. waaye teewul dab am na lu ma ca dabaatal ñu ngi fii ak yéen ci bi nekk loolu nekkul ma dem non ñoom xam nañ ni ma wax donc lii loolu laa ci na def bu fi yàlla bàyyi ba mois de juillet août mu xelal leen ngeen def seen demande yóbbu ko ci SDDR bi wala ci DRDR bu Dakar takku ma dem takku bu ko defee waxtu jublu ci loolu moom dina indi dossier waa Ndakaaru yëpp ngeen nekk ca biir bu ko defee ñu mën leen jàppale. mbéy bokk ci liy suqali réew. ñi yeewoo ci yile gox xam ko te di ci daan seen doole tax na rekk ñuy sàkku ndimbal ci président Macky Sall mu gestu leen te dooleel leen